exposition bi comme année bu jot ñu koy defee foofu ci Touba Daaray Kamil moo tax ñu xam ne ouverture bi mbokk taalibe yi fi ñëw am na si ñoo ñëwunu rek pour ñëw toog wala ñu ñëw pour jàng xasida wala nangam waaye suñu sañoon tamit xam liggéey bu Masalik xam ngi mooy xam histoire bi xam tamit jëmmi barab bi xam li ko composé ak ñi ci yëg ma aju comme li nga ko waxee sànq ni mu dikkee mooy ñu waxtaan ci kilifa yi nga xamanteni ñom lañ sékkal barab bi mu di lu melni ne mbaki yu ay weeri wér waxtaan nañ sék mom ba am ci ndigal lu wër ci mom ñu waxtaan ci président comité scientifique bi muy Serigne Moustapha jatra ba mu saytu liggéey bi ba mu dal xalam ñu dal di koy dal di koy saytu ci commission bi nga xamanteni moy commission gëstu bi nak ci biir daara ji dal di koy finaliser soog koo mën imprimer. waaw maa ngi bàyyi ko ba Kaffrine ñëw si fii di si. inauguration Massalikul Jinaan bi nga xamante ni ñu ngi ko war a inauguré le vingt tombé vendredi incha allah 2019 fii ci Dakar. waaw am contentement bu baax a baax macha allah bi ñu ñëwee aussi fekk neen fi ñoo xamante ni gis nañu wan ñu exposition yoo xamante ni mën nañu wax ne xamuñu ko woon. bi ñu xoolee nag ci leen xam histoire réelle de Cheikh Ahmadou Bamba mais ussi bi ñu liiree nataal yi aussi xam nañu vraiment kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba voilà.

sëñ Touba defar na àdduna defar na lislaam defal na ñëpp ñëpp la liggéeyal moo tax ñun dañu kontaan suñu xol dafa sedd suñu xol dafa sedd fi nekk nii màggal la ñu am si màggal la ñu nekk suñu xol dafa sedd dem ba léegi suñu xol dafa sedd mënu ko wax sax ma ko yàggee wax li sama xol dina tuuru mais kontaan naa torop li ma fi gis sama xol sedd na torop wax dëgg fa yàlla tey jii nii sax danoo amoon euh, depuis démb danoo amoon idée pour gën a yokkaat euh, espace bi nga xamante ni moom lañ daggoon parce que dem dafa feesoon ba dañ doon mujjee di am nu ni kiiwee mbokk taalibe yi ñuy mayante ba nga xamante ni kenn ku nekk dina fi mën a jaar ndax euh, euh, dafa dafa dafa attirant te dafa impressionnant parce que histoire bi dañ ko dalee depuis pàkk bu njëkk ba nga xamante ni histoire depuis pàkk bu njëkk ba la depuis pose première pierre bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha moom la defoon tegu ci Serigne Mouhamadou Lamine Bara ba ci Cheikh Sidiya Mokhtar kenn ku ci nekk li nga xamante ni jëf na ko ci maître Abdoulaye Wade ñoom Serigne Saliou kenn ku ci nekk li mu ciy jëf rek euh, fa mu jaar yëpp leeral nañ ko ba fi mu toll nii daanaka boo duggee rek boo gisee historique da ngay daal di taxaw bëgg a xam boo gisee maître Abdoulaye Wade ni mu toogee Serigne Saliou da ngay daal di am impression taxaw boo xoolee pose première pierre bi fi ñuy tege xeer wi loolu daf lay attiré. loolu dafa doon loo xamante ne nii xam-xam la boobu ñëpp fi mu toll nii ni ñuy ndamoo liggéey bi suñ sañoon xam lu mel noon ci wàllu histoire yi Masaalikul Jinaan